jëf ya bi ñuy wax ak mbooloo ma saraxalekat ya ak kilifay ñiy wattu kër yàlla ga ak sadusiyen ya daanu ci seen kaw ñu mer lool ci li ñu waar nit ñi di yégle ndekkiteel ñi dee sukkandikoo ko ci ndekkiteel yéesu noonu ñu jàpp leen tëj leen ba ca ëllëg sa ndaxte mu nga doon tàmbalee guddi waaye ñu bari te ña dégg wax ja gëm nañu te limu góor ñi gëm yokk na ba mat juróomi junni ci ëllëg sa nag kilifa yawut ak njiit yi ak xutbakat yi dajaloo ci yerusalem ràññee nañu ci anaas mi saraxalekat bu mag bi kayif yowaana aleksandar ak bokki saraxalekat bu mag bi ñu dëj piyeer ak yowaana ca digg ba laaj leen ne li ngeen def ci gan kàttan mbaa ci turu kan ngeen ko defe ci kaw loolu piyeer daldi fees ak xel mu sell mi ne leen yéen kilifay xeet wi ak njiit yi bu fekkee ne xettali nit ku wopp ba mu wér moo tax ngeen dëj ñu ci pénc mi tey na ngeen xam lii yéen ñépp ak bànni israyil gépp ci tëru yeesu kirist mu nasaret mi ngeen daajoon ca bant ba te yàlla dekkal ko ci tur woowu la nit ki jële ak wér ba taxaw ci seen kanam yéesu moomu mooy doj wi ngeen xeeboon yéen tabaxkat yi te moo doon doju koñ te mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce kon bi gisee fit bi ak yowaana àndal te ñu xam ne mësuñoo jàng mbaa ñuy gëstu ci diine ñu daldi waaru ràññee ne daanañu ànd ak yeesu te bi ñu gisee nit kañu fajoon taxaw ak ñoom mënuñu caa teg dara noonu ñu santaane ñu génne leen ñu daldi gise ci seen biir ne lu ñuy def ak ñi ndaxte def nañu kéemaan gu siiw loolu leer na ñi dëkk Yerusalem ñépp te mënuñu ko weddi waaye ngir mbir mi bañ a law ci xeet wi nanu leen aaye ñu bañ a waxati ak kenn ci tur woowu noonu ñu woo leen ñu tere leen bu wóor ñu waxati mbaa waare dara ci turu yéesu waaye piyeer ak yowaana tontu leen ne bu fekkee ne déggal leen te bàyyi yàlla moo jub ci kanamu yàlla seet leen ko waaye nun mënunoo bañ a wax li ñu gis te dégg ko noonu kilifa yi tëkkuwaat leen yiwi leen ñu dem ndaxte amuñu benn bunt ci ñoom ngir mbugal leen fekk ñépp di màggal yàlla ci li xewoon ndaxte nit kañu fajoon ci kemaan googu weesoon na ñeent fukki at bi ñu leen yiwee nag ñu dem ca seeni mbokk nettali leen la saraxalekat yu mag yi ak njiit ya waxoon lépp bi ko mbokk ya déggee nag ñu mànkoo di seen kàddu yàlla ne borom bi yaa sàkk asamaan suuf géej ak lépp li nekk ci seen biir yaa wax jaar ci sunu maam daawuda sa jaam mi doon gémmiñu xel mu sell mi ne lu tax xeeti àddina di baax lu tax ñuy fexe lu mënula am buur buuri àddina dañoo booloo te kilifa yi dajaloo di bañ boroom bi ak almaseem ndaxte ci dëgg ci dëkk bii erod ak pons pilaat ànd ak xeeti àddina ak bani israyel likoo nañu ngir daaneel sa ndaw lu sell li nga fal di yéesu te def lépp li sa kàttan ak sa ndigal tëraloon léegi nag borom bi seetal seeni tëkku te may say jaam ñuy wax sa kàddu ak fit tàllalal sa loxo ci wéral ak ci wone ay kéemaan ak ay firnde jaarale ko ci turu yeesu sa ndaw lu sell li bi ñu ñaanee ba noppi barab ba ñu booloo woon daldi yëngutu te ñoom ñépp fees ak xel mu sell mi ñuy wax kàddu yàlla ak fit wu dëgër noonu mbooloom ñi gëm ñi bokk menn xel ak benn xalaat kenn daawul aakimoo dara ci alalam waaye ñoo bokkoon lépp te ndaw yi di seedeel ndekkiteel yeesu borom bi ak kattan gu réy te yiw yaatu ëmb leen ñoom ñépp kenn ci ñoom ñàkkul dara ndaxte képp ku nekk boroom suuf mbaa am ay kër jaay na ko indi njëg gi teg ko ci loxooy ndaw ya ñu di ci sedd kenn ku nekk li mu soxla noonu amoon na fa tudd yuusufa te ndaw yi dàkkantele ko barnabaas mi tekki kiy dëgëral fit yi mu soqi ko ci giiru lewi te juddoo dunu sipar moom nag jaay na tool ba mu moom indi xaalis ba teg ko ci loxooy ndaw ya